li ci yéenekaay yi la ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf coow la ca ONAS pënd bi xaajagut a wuri ndax journal yii di la quotidien Les Échos Source A journal Life ak L'As xëy nañu di ñu xibaar ne honorable député Abdou am na ay questions écrites yu mu jagleel Cheikh Tidiane Dièye mi ministre hydraulique ak ngir mu indi ay leeral ak gindi ci li ñuy ngungune ci réew mi ak di ko romandaat ci li waral ñu jëlee docteur Cheikh Tidiane Dieng ca bopp office national assainissement ca leetar ba yéenekaay ce que provisoirement entreprise yi di Tawfekh ak Taysiir ak Delgas jël marché ba jox ko entreprise yi la neex ci entente directe bu dee loolu dëgg la lu am la ndax dëppoo ak li code des santaane ndax marché yi ñuy wax ne moom la ONAS joxe woon ay surfacturation da caa am honorable député Abdou Mbow ne ministre Cheikh Tidiane Dièye Cheikh Dieng mi ngeen dàqee ca ONAS li mu ne dafa ay entreprise yoo xam ne dañuy proposer ay prix yu ñu minoré bu baax a baax ngir mën a éliminer yenn na ñoo xam ana lan moo ci am dëgg-dëgg est-ce que yooyu la entreprise mas nañoo liggéey ci réew mi ay marché yu sedd xol ni ko ONAS bëggee ak question écrite yooyu honorable député Abdou Mbow bind ministre Cheikh Tidiane Dièye ngir mu wax li am dëgg-dëgg ci li waral ñu jëlee docteur Cheikh Dieng ca bopp ONAS journal L'As li mu ci gis mooy groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ba ci assemblée nationale seen bëgg-bëgg mooy ñu leeral li jur scandale bi l'observateur mi xëye préférence nationale gi signé fanweeri fan ak benn ci weeru sulet gi mu jëm ci jël 9000 yu ñu war a tabax ci réew mi jël liggéey ba jox ko ay entreprise chinois Guy Marius Sagna ne li muy laaj mooy ndax ba ñuy def loolee amul woon ci réew mi ay entreprise yu ko mën a def journal laay fa nañu Guy Marius Sagna ak Abdou Mbow ñoo ngi gësam yenn ci ministre yu nekk ci gouvernement bi ngir ñu indi ay leeral ay tontu ak gindi ci lu ñu leen di waxal ñu wax ci journal Tribune mi wax ci wàllu wéer garam gi ci réew mi ba gis ca ñetti yëf benn bi mooy santé bu nekk aux urgences ba nee nañu mooy secteur de la santé bu Sénégal kàngam yi ci ñu ràññi leen ci ñu bare ngay roñu di dem seen yoon professeur Cheikh Tidiane Ndour yéenekaay bi nee nañu dem na ci bureau régional bu organisation mondiale de la santé docteur Abdoulaye Bousso dem na ci organisation mondiale de la santé professeur Amadou Gallo Diop ngi wax ne dafay dem ñu dem seeti secteur beneen bu tàmbalee dem yoonam ndax ay jafe-jafe yu muy dund Sud Quotidien nañu mooy secteur de la presse bi guddi yu ñu toll journal bi nee nañu le quotidien gis ne crise bi média yi ci réew mi di dund kenn tegu ko kudul état bi état bi mooy naan entreprise presse yi ci réew mi ay contrôle fiscal confisque aide bi ba noppi nag di leen tegal ay mise en demeure yéen a di stade ak sunu lambu yi seeni borom tëj ndax nee na mënatut a dem journal bi nee nañu tax na waa CAP di coordination association de presse di yëglu les éco nañu waa nañu ne situation bi entreprise presse yi réew mi di dund buñ ci jugul sàkk ciy gis yeneen i média yu tëj seeni bunt fisc bi TNT bi suspension convention yéen a bi gis na ne mi fu nekk koy nale njiital Synpics di Bamba Kassé ñu ci xët mu njëkku laa Sénégal il faut que état bi xam ne secteur médiatique mi ci danger directeur général bu E-Média di Alassane Samba Diop ni ñu ci xët mu njëkku enquête ne kay ñoo ngi toog di seetaan presse bu Sénégal muy faatu te kenn jéemu ci leen song gi ñu gis ñu ko song fan yi direction bu CNCIS bay wax ak népotisme gu fa am journal point actu xëy nañu baaxee ci xët mu njëkk ay leeral yi ci direction ba def directeur général ba di Cheikh Tàkk Diop moom ak daaf ba di awofal yéenekaay li ñuy wax ne ay mbokk weesoo Louga gi ñu bokk cosaanoo ñoom ñaar bokkuñu leneen kii di docteur Amadou Sely li moom yéenekaay bi nañu 2016 ba léegi ma nga ca sému li ñu ne militant APR la woon looleet musuta am bañ na ko sax ba moo ne woon numéro 2 bu parti bii di RCD coow leneen lu fa am te direction CNCSU indi ci ay leeral moo di bala Thiam mi ñu def directeur audit interne nee nañu mën ko ca poste ba yombul ndax ñépp ko seedeel rigueuram ak njàmbaram ak transparence ci opération financière ca agence ba gaal gi fi suxoon ca Tambacounda l'observateur xëy na ñu ci jox xibaar yi ci mujj ba di ñu xamal ne seet ca ndox ma gis nañu ci yeneen juróomi néew yoo xam ne kenn ki jigéen la. jaajëfal ko bu baax ci euh, yéenekaay yi waaye itam jaajëfal leen ci seen safoo euh, seen kóolute rédaction bi dik leen daje ngoon ci kàttan yàlla euh, ci yeneen jotaayu xibaar ci français ak wolof lay doon léegi léegi mairie bay ak tos ci li xew ci biir internet bi leen ñaanal kenn dal jàmm di ko sàkku ci yéen yaa ngeen jëf ci seen cofaat